ci gëstu bés bi la ñuy yegg si homme wala phénomène de l'année 2014 Samba Sine la alias Koutias moom humoriste bi di liggéey nag liggéey bu rafet fii si télévision Futurs Médias ñi nga xamante ne nag ñooñu leen la àndal ci liggéey bi eh, joxe nañu seen xalaat ci eh, liggéey bi nga xamante ne am mi ngi koy amal personnalité itam yi nga xamante ne mu ngi leen di toppandoo bés bu yàlla sàkk ñoom it rafetlu nañu bu baax a baax liggéey bi nga xamante ne am mi ngi koy def jàpp nañ ne artiste dëgg la mën li muy def te di ci. dem ba jeex dañ ciy dellu euh, gëstu Aïssatou Paye Fall Thierno Laurent Mendy Adama Gueye ñenn ñi di muñ di ree di xaxataay seeni kanam leer loolu ñoom ñépp na jàkk télé bi juróom benn waxtu jot na émission ku bi door kenn nooyeetul loolu mer bala nga stressé wu boo seetaanee Kouthia vraiment da ngay fàtte lépp lépp ngay fàtte. man su ma amee problème su may seetaan Kouthia moom sama problème dama koy fàtte quoi. li muy def boo koy seetaan sa xel du nekk si jëw moom rek ngay seetaan li muy def rafet na loolu. ñii ngeen di gis nag bokk nañu ci ñi mu gën a sonal waaye meruñu benn yoon ndax liggéey bu rafet bi Abou Bilal di def. ku man li moo def la te daf koy def ak xol. mais aussi def ko ak mën-mën sénégalais yépp wóor na ma ni ma ñu ngi suivre Kouthia ndax man amatuma jàmm si dëkk bi fu may dox gaa yi ni ma Kouthia di lakkal na la xale yi tuuti yi sax su may dox si mbedd mi yenn saa yi di dox dara dégg kenn du wax barke Serigne Saliou. nit ñi bëgg nañ ko waaye danaa wax ni lakkal na ma. Kouthia pour ma dépassé na sax ay homme de l'année ay phénomène de l'année te tous les jours phénomène la moom bis bu nekk mu fu génnee yëngal Sénégal reeloo sa coono sa naqar sa tiitaane loolu lu la jaaxal boo toogee janoog Kouthia loolu day naaw kuy faj Sénégalais yi danaa man Kouthia mooy docteuru Sénégal li muy liggéey aar bi muy génne mais li muy joxe xam-xam ci nga xam ni Sénégalais yi fekkewul xamuñu géej gi réer ñu leen jàngale wax leen li ma xew ci réew mi. nit ñi sopp ko lool. kenn bañu ko ba tax directeur programme TFM TFM bi di seede. du comédien rek Kouthia ci li muy def daf ci euh, wax ak askan wi ci wàllu xew-xew yi nga xam ne moom moo moo xew Sénégal ci wàllu politique ak ci yeneen ak yeneen. Kouthia talaam mënuñu ko expliquer yàlla moo ko ko may dafay boole xol yi boole religion yi boole nit yi je pense que moom lay wax ni c'est très réfléchi Kouthia c'est pas que pour faire ku ca c'est pour aussi. faire réfléchir. Kouthia aussi am na am na ay côté am yoo xam ne il faut ñu gérer ko parce que c'est un artiste des fois mu xaw a déconné tuuti dugg na fi génn fii ci c'est du Kouthia mais je sais que au fond ci biir xolam euh, fii muy liggéeyee am na fu mu ko toll. àndandoo bu yàgg tax Pierre Da Silva réalisateur moom itam bokk si ñi koy jox bokk si ñi koy séddeel. saa nitu neen la lépp lu mu am da koy partagé lu mu am. si plan professionnel. Euh, day dem ba jeex lu muy def du xool de fois yow sax da nga koy ne non bu fàtte ni da nga am njaboot mu ne lonoo li may def nii mooy dundal sama njaboot. lenn rek tax ko jóg lu dul bëggal ñi koy seetaan ba tax day dem ba jeex ci li muy yëngu. chaque jour nga gis koo xam ne mosul a seetaan day dégg rek kucaa kucaa kucaa donc toujours damay jàpp ne tey laay soo a commencé loolu mooy tax toujours may jàpp ne euh, parce que boo demee ba miim sa public rek mun nga lâché te man man damay jàpp ne chaque jour da war a prouver ne am na koo xam ne day toog tey na xaaral ma seetaan Kouthia du ma retaan loo am na ñu koy wax tey moom Kouthia du ma retaan loo wala li ngeen Kouthia bi may dégg Kouthia bi may dégg nii loolu mooy tax ñuy euh, génn énergie waaye tamit. Euh, groupe bi ngay nekkal ñi ngay nekkal ñi ngay gis waxtaan yi am ñu ndaw yi ngay for yooyu da lay donc euh, ba ngay gën a am inspiration chaque jour. ci kaw lii lépp seede bi doon benn kenn ŋàññu ko ci lenn mu wéy di ñu bëggal wàcceel ñu coono ak stress ci kaw xaxatay show bu amul fenn.